benn rôle xamul sax rôle bi ngeen joué vous avez joué un rôle incontournable bu ngeen fi nekkul woon du ne bu fi nekkul woon wallahi du ne yàlla dëgg la bëgg waaye nag nee nañu feccum liir bu neexee ndey jaa téye ca mbagg ya booba ñun seen yaay yi dañ leen a gëm man yéen laa gëm la jeunesse de mon pays mais la jeunesse patriotique rawatina nag dakaar gi nga xam ne ñoo ko bokk ma leen di encourager bu baax di leen wax ni vous êtes sur la bonne voie alors li ngeen woote dafa am solo mooy euh, seen taxawaay ci projet bi nest pas Bousso seen taxawaay boobu dafay taxawaay boo xam ne yéen mosu leen ciy jóge ci GPS national la commencé woon en 2018 mu yegg si ba 2021 JPS départemental ñëw mosuleen sonn musu leen tàyyi ñun MOJIP activité bu ñu daan def dañuy woo JPS ne leen kaay leen parce que boobu dañu naan bon ñun amuñu kàttan physique am nañu jom am nañu détermination mais l'énergie et la vitalité c'est les jeunes te yenn saay mbir mi day ànd ak vitalité donc c'est vous la vitalité yéenay énergie bi yéenay source de d'énergie wu Pastef kon seen rôle ci projet bi xamu leen sax ni mu multidimensionnel c'est un rôle multidimensionnel ci xeex bi ba mu jotee xeex nañu nangu ci gunge bi ndax yéen a yeggale nag ëllëg c'est vous qui allez diriger ce pays incha allahu rabbi mais nag ci gunge bii man day am naa lu ma leen ciy dénk vous avez certes vous des initiatives des perspectives des projets et une stratégie peut-être bu ngeen war a taxawal pour protéger projet bi parce que man de dama ko daan wax te loolu laa leen di xaar je me suis battue j'ai vendu un projet j'ai vendu un leader tey yàlla may nañu li ñu bëggoon li ñu dese nag c'est protéger le projet et c'est à vous de protéger le projet et protéger le projet ne veut pas dire continuer di xeex wala di sànni xeer mais c'est d'abord être solidaire au projet léegi nag waxtaanu biir néeg la La solidarité au projet, c'est de défendre les intérêts du projet. fu ku bokk ci projet bi kenn waru ko ŋañ ci yéen te wa kenn warul seetaan ñu koy ŋàññ mais keneen koo xamante ni aussi am na keneen ku koy ŋàññ ci biti yéen a war a taxaw défendre ko lu cas de Abass la tudd nañ ko fan yi la JPS doit se lever comme un seul et même homme comme le tout le département de Dakar bu nekkee kaawu may mun a jéey noonu la war a demee parce que yéen yéen a war a défendre projet bi c'est dans l'intérêt du projet qu'on doit défendre nos responsables qui sont là ñun ñooy image bi ñun ñooy wane projet bi ñun ñoo ni woon Sénégal li fi nekk baaxul n'est-ce dañ koy changer n'est-ce pas mais nuñ koy changer te ay saay-saay nekk fii subaak ngoon di ñu faagaaga subaak ngoon di ñu xeex maa ngi nii suba teel laa nar a xëy dem ba Bakel pourquoi je viens de rencontrer le PM parce que il faut ñu sóoraale ñooñu fu ñu toll nee nañu dañuy campagne politique parce que dama dem foofu yóbbu vivre dama dem foofu financer jigéen ñi dama dem dama dem dama dem fu ñu toogee di ko wax c'est parce que ñoom bañ ko waree def defuñu ko. fu ñu toogee di ko wax parce que man dama dem à Matam dama doon jooy sama oto waa ji génn ci mbedd bi lañ leen fekk ñu lal ñu ne mësuñu gis ministre. te pourtant gis ngeen ñi fiy xeex ñëpp di génnee ay fital di wax lu leen neex naan waaw non nangam kii naan maa moom fuuta kii naan maa moom maatam ndekete duñ leen sax gis waaw ñun ñu dem fa fekk ji leen keroog kenn ki dafa daw ba ci man mu ne laal naa yii laal naa ministre nee nañu gendarme lañ daan gis gendarme su bëree ba bëri préfet kon bu nit ñi nekkee ci ginnaaw naan xool ngeen leen ma nga fa ak jigéenam di di di di campagne euh, politique dañu ñàkk yërmande mais yéen a fi ne pour tontu leen man c'est ce que je vous man kenn du laal ku taq Pastef ku laal ku taq Pastef ma def ci yow. donc fu ngeen gisati ñooñu ñooñu bu leen tontu ci seeni post fu ngeen leen séenati ñuy wax ci waaw ministre nangam ministre nangam xool leen ba mu leer neen ni li ministre bi def dëgg la moo ko def te nii la ko defee ngeen jël ko yéen jaay ko parce qu'en réalité ils ont peur on le disait tout le temps Abbas la peur et de leur côté diw lekk na xaw ma ñaata milliards du waxi nit bu amee moo tey ñoom bu ñu ko jekku woon dañ koy def moo tax ñu foog ni ñëpp kon ñoom la ñu mel gis nga fii mu nekk nii ah man damay wax ak yéen parce que yéen laa gëm ni yéen ko mën a régler problème bi booy boycotté leen leen mais fu ñu waxee tontu leen jeex na takk jeex na takk loolu ñoom suñ koy wax dañoo jaaxle parce que bu amoon du ñu yem ci wax dañuy génne ay preuve dañuy def ay citation il faut ngeen yeewu c'est de la manipulation ils sont toujours dans la manipulation c'est à vous de refuser refuser leen loolu fu ñu tuddee Abbas Fall ngeen jug taxaw man ne maa ni Abbas Fall mooy borom Ndakaaru su ma ko waxee c'est pas parce que dama bëgg lu ko neex c'est parce que daf ko yeyoo c'est parce que daf ko mérité ñoo fi nekkoon 2014 ba tey di xeex du ñu ñëw ba fii jël suñu pouvoir di seetaan ay saay-saay di ñu taqale duñ ko nangu donc c'est à vous la JPS de protéger le projet dans la solidarité et j'espère que sama expression yi may wax di ngeen ko retenir dans la solidarité même bu la leeree ni may mun a jéey mën na am lu ñuy wax moo ko def bàyyil ba mu am lu la leer ci loolu nga doog ko wax waaye c'est parfois parmi les jeunes ngay gis ko naan ah mais moom na génn tontu pourquoi muy tontu pourquoi muy tontu loo deful bu la leeree ni defoo ko sa yoon newu ci ku la wax nga ni ko maa tey Abbas c'est vous avez une mission xaw ma nag seen rôle ci projet bi lan la su ma demee di ngeen ci waxtaan mais man daal la mission ko je vous confie et je sais que si on y va comme ça on va résister la résistance jeexagul de résistance bi ñu doon wax jeexagul parce que fi mu nekk ñoom dañu sàcc ba am xaalis am alal moyen yooyu lañuy ñuy bëgg a doore suñu kaw naan xool leen may mun a jëy ma ngay ma ngay campagne di financer ay jigéen jigéen ñi di waaj a dee lekk ñu naanuñu sonn seen njaboot wër leen et que ouverture des classes taxaw inondation bi nangu seen kër yi agriculture bi dara génnagul ba seen xel dal boo amee ay plan de de de de résilience doo ko def soo amee ay plan lié à l'insécurité alimentaire doo ko def man dama koy def di sant yàlla di kontaan li mu jaar sama loxo di dimbali doomu aadama di ci xaar fayu yàlla ñoom saay-saay yi naan dangay ngay politique ñu neexee mais au moins am na ñu koy jariñoo te ñoom daawuñu ko jox ñi ko moom loolu je ne à le partager avec vous mënuma monopoliser kàddu gi mais na ngeen xam ni lii débat bu dul jeex la man de mën naa xëy sax woo leen invité leen ne leen kaay leen ñu waxtaan Moi, je sais qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter à ce projet. Donc, Bousso, on va terminer la discussion après. S'il y lieu de se revoir, wax naa ko keroog Grand Théâtre dañu nammante man de dama leen a namm man. donc on va continuer incha allah ce genre de discussion mais na ngeen xam ne Ousmane Sonko na mu ko daan waxee démb man maa leen koy waxaat tey. tey la gën a soxla plus que jamais sa jeunesse ñu ngi koy yàq lu ne ba léegi kenn du tudd président de la république seetluwu leen ko de moo leen sonal moom moo leen sonal donc c'est à vous de le défendre c'est de le défendre bi ngeen nee kenn du ko jàpp kenn jàpp ko bi ngeen nee dafay bokk kenn mënu ci dara c'est vous la force de notre nation donc continuer leen noonu saa yuñ ko xasee déggoo leen xamante et je compte sur pour ça jërë ngeen jëf